Euh, li ñu boole woon ci suba euh, dañu bëgg a lancer benn plateforme numérique euh, dañoo bëgg utiliser jumtuwaay yu xarale yi pour recherche yu ñuy def ci université yi foo mën a toll ci réew mi ak ci àdduna bi nga mën cee jot mën a xam kan moo liggéey ci ban fànn

daañu ko mën a xam ñaata at nga inscrire euh, boo soutenir e ba pare ñu def jury ñan ñoo nekkoon ci sa jury euh, bu pare bu fekkente ne nangu nañu sa liggéey que liggéey kal am na qualité ñu def ko ci plateforme bi comme sa àdduna bi yëpp mën caa jot euh, ñu ko yittewoo mën ko consulter bu ko defee daañu ko mën a utiliser waat pour yeneen recherche léegi euh, noonu la ñuy euh, noonu lay plateforme bi di doxee. ngeen koo testé. testé nañu ko euh, ñaari yoon ci ay kii tey nag mooy test bu mujj bi nga xam ne dañoo woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a jëfandikoo pour ñu gën koo càmbar bu ko defee bu amee ay fànn ya nga xamante ne kiiwul ñu mën kaa joyanti. bu loolu weesoo d'abord déjà ñu ngi en tout cas félicité ndokkeel euh, professeur John ak euh, ñi muy liggéeyal yëpp ak équipe bi pour liggéey bu am solo bi ñu defal ci juróom-ñetti weer yi passé ba Sénégal mun a am léegi benn jumtuwaay boo xam ne benn plateforme boo xam ne ku fi def mémoire wala thèse ñu war ko ci mën a dugal ku nekk ci àdduna bi nga war ko mun a njëriñoo.

Koufi, le sénégalais vous bu une fi def ci université sénégalaise wala ci institut de recherche au Sénégal publication nous mun a def plateforme pour xam war nañ ko répertorier ñu mun ci mun ko